waaye ku ku tey ku tabarkalla xalim bi lewet baaxul ci góor dafay wane ni amul responsabilité góor dafay teey waaye du lewet waaw góor dafay teey waaye du lewet waaw yàlla nag dafa dënniir lu ndax bu gestoo balaa loosam dellu si junni siècle dem loola tax mu dënniir lu dara rëccu ko wante ci wàllu ma Masoudi war ngeen ko di seet góor gu amul morom la te liggéeyam ci domaine boobu bu am solo la ndax dafa feeñal taar ci ko xam taar waxuma ku ko xamul am na ñoo xam ni dañu riche rek di jënd mais li ñu jënd xamuñu ko maara day tàlli kooku kenn du ko def man nag sama métier la ba ma dee ba léegi sama waa kër xam nañu ko sama métier la waa bitim réew sax dañ may fekk si